bon la lecture bi nga xam ne ni dama koy par rapport a li nga xam ne nii la plupart des journaux pour ne pas dire tous moom lañ titré mooy en tout cas y benn personne boo xamante ne nii un opposant de surcroît boo xam ne ni Ousmane Sonko la tudd donc au moment où on est en de faire des débats donc euh, il est dans les liens de la détention mais li nga xam ne ni moom lañ constaté ce qui est constant mooy moom il imprime le tempo hmm. c'est-à-dire même depuis euh, sa cellule au plus profond de sa géoule moom il oriente les débats donc li tax nag loolu am mooy moom c'est un homme politique boo xamante ne nii donc il cristallise beaucoup d'espoir donc il porte en bandoulière donc euh, le destin pratiquement on peut dire pour ne pas exagérer de de plusieurs Sénégalais yi nga xamante ne ni dañuy identifié wu ci politique bi nga xamante ne moom bu mu ñëwee offre politique bi nga xam ne moom moom la moom la proposé donc de ce point de vue là bu fekkente ne par exemple débat politique bi moom il est toujours en détention mais moom day continuer di di di orienter les débats donc loolu nag da nga nangul parce que dayoo moo ni moo moo ni toll parce que tey ji Sénégalais yu bëri dañuy identifié wu ci projet bi nga xamante ne proposé na leen ko pour li nga xamante ne nii jàpp nañ ne nekk na fi mu mën a am ay soppite yoo xamante ne dina ko dayo politique am moom moo ko permettre tey jii même bu fekkente ne il n'est pas libre donc muy imprimer le tempo di orienter les débats. moo la ci gën a marqué daal. voilà baax na ok mu ngoog.